li ni mel nag mooy xalaatu directeur UFR des sciences de l'éducation de la formation et des sports bu université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu teew le professeur Assane Diakhaté ci micro Yves Tendeng. domaine bi nga xam ne ni mooy psychologie. daf fi tumuranke tumuranke googu nag dafa dem ba àgg ci famille yi ndax lu ñuy wax neuroéducation lu ñuy wax santé lu ñuy wax euh, psychologie du sport. dañu gis ne daf fi tumuranke pour ñu euh, bokk ci ñi koy dundal ñu ne nag ñun en tant que université il faut que ñu proposer loo xam ne nii dana contribuer ci formation bi moo waral ñu ne dañuy offrir benn licence en en psychologie avec des spécialités waaye aussi ñu ne ñun comme dañu nekk département boo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu sport sport rek ki nga xam ne nii day daw mais ci gannaaw sport xam-xam bu rëy moo fa nekk ak gëstu bu rëy moo fa nekk ñu ne nag ñooñu loolu aussi il faut que ñun. en tant que structure boo xam ne day innové nañu aussi xoolaat suñu formation bi parce que déroulé nañ ko ay at ba anak sax accrédité ko waaye dafa ci defoon ay recommandation nee ah lii de ngeen di def baax na lool am na solo lool waaye su ngeen ko xoolaatoon am yokku ci lii yokk ci lii dana tax mu gën a baax ñu ne nag nañ jël en compte observation yooyu pour xoolaat suñu maquette boobu ndax santé dafa am solo ndax dafa nekk loo xam ne nii dañ neel na foddeeku bala ngaa lakkale dañu war a prévenir avant problème bi am mu nekkoon professeur Assane Diakhaté yëkkati yile kàddu ci benn ndaje buñ doon amal foofee ca Saint-Louis mbokk yi freñoo yem ak yéen ci info santé ñu ngi leen di gërëm di leen sant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 Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Info Santé. La santé mentale, un véritable problème mondial euh, qui mérite d'être euh, pris en charge de manière sérieuse. C'est le point de vue du directeur de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et des sports de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le professeur Hassan Diakhaté. Nous l'écoutons au micro de Yves Tendeng. Nous avons constaté qu'au Sénégal, et presque dans beaucoup de pays, cette question très importante de la santé mentale, de la psychologie en général, est laissée en rade. Nous avons plus de sept universités, sept établissements d'enseignement supérieur public qui offrent des formations. Et en, dans le domaine de la psychologie, nous avons vu qu'il n'y a que Dakar qui a ouvert un département et que cette ouverture est récente. l'IGB, à travers l'UFRCEF, e a jugé nécessaire de développer une licence pour ouvrir des spécialités en neuroéducation, en psychologie clinique, en santé mentale, mais aussi en sport, la psychologie du sport. C'est une problématique mondiale parce que nous nous disons que les sciences de l'éducation s'investissent en dehors aussi de la classe et vont jusque dans les familles. Et à partir de ce moment, la prise en charge de l'enfant, la prise en charge de la maman, depuis la grossesse jusqu'à la naissance, jusqu'aux les premiers 1000 jours, nous avons vu qu'il y a un déficit là-bas. Il y a un problème là-bas et il y a des besoins criards dans ce domaine-là. Et c'est la raison par laquelle nous nous sommes dit, nous allons nous focaliser sur la petite enfance. parce que nous avons beaucoup de structures publiques, mais la question de la petite enfance n'est pas prise en charge. C'était le professeur Hassan Diakhaté qui s'exprimait à l'occasion d'un atelier de validation de la maquette de formation en neuroéducation, en psychologie clinique, en santé mentale et en psychologie du sport. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Info Santé. Merci de l'avoir suivi.